mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey suuratu ibrahim alayhi salaam ci aaya bu jëkk bi inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بقى الحمد لله suñu boroom gis nañu ni mi ngi ñu wërsëgal ñu ngi dund ci chahru ramadan di weerum bu barkeel boobu yàlla miy dogalit dogal ne bisu aljumma di bis boo xam ne da ko barkeel lool bokk na it ci ngënil yu boroom xam-xam yi di wax ci waxtu wu tedd wu yàlla dugal ci bisu aljuma ba du ca delloo ñaanu jullit ñu ne loolu mi ngi nekk gannaaw tàkkusaan loolu moo tax ba lu bari ci borom xam-xam yu jëkk ya bu tàkkusaan mosaan a jot dañuy wéet ak seen borom di baril ñaan di baril jéggulu mi ngi noonu ba ba jant ba di so walilahi alhamdu ñetti ngëneel yooyu yépp suñu boroom dajaleel nañu ko ñu ngi koy ñaan moom mi ñu ko dajaleel yal na yàlla nangul ñu ko kon insha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane jël suñu bind bu jëkk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام alif lam ra yàlla moo xam lan mooy jubluwaayam ci loolu maa ngi lay fàttali rek ne foo ko jànge am nga fanweeri tuyaaba mi ngi noonu alif fukk laam fukk ra fukk kitaabun anzalnaahu ilayk lii day ab téere la ñoo ko wàcce ci yow li tuxrija annaasa min alzulumaati ila ila nuur ngiree nga génn nit ñi ci lëndëm yi yóbbu leen ca leer ga bi izni rabbihim ci seen ndigalu boroom nga yóbbu leen it ila siraati alaziz ci yoon ki not lépp ci kàttanam alxamid ki nga xam ne cant yépp moo ko yeyoo ca moom la lépp di sant allah mooy buur boobu nga xam ni lazi lahu ma fi samawati wa ma fi l ard ñeel na ko lépp lu nekk ci kaw asamaan yi ak suuf wa waylun lil kafirin alkaa nga ñeel ne yéeféer ya min azabin shadid ci mbugal mu tar moo xam ne mi ngi leen di xaar alladina yastaxibuuna alxayaata addunia ala al axira ñooñu nga xam ne dañoo gënale dundug àdduna ci dundug alaxira wa yasudduuna an sabilillah ñuy fegaate ci yoonu yàlla wa yabhuunaha iwaja di sàkk yoon woowee muy yoon wu jekk wu jeng wu jafe jaar ulaika fi dalalin baid ñooñu day ñi ngi ci réer goo xam ne réer gu sori la mi ngi noonu mbokk suñu borom yàlla mi ngi ubbi li nga xam ni mooy ay xaraf te it la ëpp ci ab téeréem su ko waxee rek maa ngi cay teg défendre alquran moo tax fii bi mu ko waxee mu ne lii de téere la boo xam ne anzalnaahu ñun yàlla ñoo ko wàcce naam yàlla moo woo jibril alayhi salaam jàngal ko alquran mu wàcce alquran yépp ci asamaanu benneel gannaaw ba di ko wàcce ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ayaat suura ci diiru ñaar fukki at ak ñett ci yow lañ ko wàccee suñu borom waxul anzalnahu ilaykum loolu day firi ne yonent yàlla boobu dong moom mooy ki xam alquran naka la ko yàlla bëggee ñu jëfee ko ni mi ngi noonu looloo tax liñ doon def nii léegi suñu borom dani wa aqimu salaa waaye amul fenn ci alquran fooy jàng ne tàkkusaan ñeenti rakk la kon yonente boobu ñu ko wàcce moom mooy ka nga xam ne moom la ko yàlla xamal lan moo tax alquran wàcc moo ko tey li ëpp ci nit ñi li ñuy jëfe alquran mooy bàyyi dee na ñu ne nañ daje wàcceel ko kaamil damay samp sama sanc sama kër woote ñu wàcceel la fa kaamil ba léegi sax lu tasaaroo la ci nit ñi bala ngaa tudd sa doom woo équipe kaamil ñu wàcceel la sa kaamil avant ngay tudd sa doom mbokk yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne yeneen bi xamu ko woon ay sahaabam xamuñu ko woon mbokk alxuraan dafa ñëwoon ngir yonent yàlla bi leeral nit ñi génn leen ci lëndëm yi ci lëndëm yi kéefér ci lëndëm yi bokkaale ci lëndëm yi nga xam ne ni mooy sosi bida ak rëy ak lu mën a doon loolee la islaam ñëwoon yonent bi alei salaam di cee génn nit ñi jëme leen ci ak leer leer googu mooy lan mooy yoonu yàlla bi nga xam ne subhanahu wa taala tàllal na ko muy leer nan ñi benn lënt amu ci looloo tax mbokk diggante jullit ak yéeféer seen misaal ñu ngi mel ni ki nekk ci àll bu lëndëm këriis du gis sax ay loxoom ak ki nekk ci ak leer di dem yéeféer day làmbatu rek pas-pasam da koy làmbatu jëflanteem naka noonu am naa jullit yow yaay ki nga xam ne ku nekk xam nga naka nga war a jëflanteeg moom ka ca jiitu mooy sa borom jalla waala jaamu ko man ko bokkaale dara yonenti yàlla bi fa ngay yem ak moom xam nga ko moom dala war a jàngal jaamu yàlla nga roy ko ci moom du yegg nga jàpp ne moroomu yàlla la bi di ko jaamu doo demit ba jàpp ne moroomu kenn la ba ay waxam nga koy méngaleeg waxi kenn ñu ngi noonu noonu ngay ñëwee ba ci say waajur ba ci kum mën a doon islam moom dalay leeral naka ngay jëflante waaye na génne googu ndax yow yonent bi yaa ngi koy def ci sa kattan déedéet yaa ngi koy def bi izni rabbihim ci seen ndigalu boroom yàlla rek mooy jox jaam digal pour mu gëm looloo tax a rasul sallallahu alayhi wa sallam ba mu nekkee màkka di woote ñi gën a sës ci moom daanaka mën nga wax hamza rek moo ko ci gëm booba ñeenti baayam ñi ngi dund abi lahab mi ngi dund abi taalib mi ngi dund abbas mi ngi dund hamza ngi dund ila axiri hamza rek moo ko gëm avant muy gàddaay abbas ca fin ba lay doog a dugg si ci lislaam abi taalib ci kéeféer la de abi lahab moom jarul ma lañ koy wax kon te ñooñu lu ne yonent bi alayhi salaam def na ko daj na ko ci ñoom abi taalib ba ci lalu sukuraatam yonent bi alayhi salaam mi ngi ko topp ay bàyyi waxal laa ilaha illallah kaddu goo xam ne danaa ci mën a dëgg ëllëg ba ñaan yàlla jéggal la waaye mu dee ci ak kéeféer kon bi izni rabbihim ci seen ndigalu boroom boroom boobu nag ci ndigalam dem na ci Chine jëbal fa ay chinois dem Amérique jëbal Amérique puis ñëw Afrique jëbal fi ay ñu ñuul loolu lépp mbokk mi ngi ko defee ci ndigalu yàlla jalla waala borom boobu mu ne yow yonent bi yaa ngi jëmee ci siroot siroot mooy ak tariq yoon boo xam ne amul benn loo xam ne nii lënt bu ca nekk dafa tàlli ñaret direct loolu moom la arab di wax siroot mi ngi noonu siroot al aziz mi nga xam ne moo not lépp moom la yonent bi alayhi salaam doon waxoon ne yàlla noppal na leen taraktukum ala mahajjatin bayda layluha ka nahaariha la yasiqu anha ila haarik bàyyil naa leen xàll wu yaatu wu leer nañ ñi jaar fa guddeeg jaar fa bëccëg a yem ndax amul lu lay gêné di la baare amul nag ku koy teggi di jaar fi ñan du dul ko dara al ko te yow julit bi xellu sa diine dëppale koog diine saxaaba ya xoolal fa saxaaba yi jaaroon xoolal fa saxaaba yi yemoon nga yem foofu moytul ma lépp lu ñu créé des siècles avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tudd ko des raccourcis yoo xam ne nii nee na ñooy dalay gën a jegeel sa borom boo ko jëlee doo lakk sa doom du lakk kaza wa kaza yooyu mbokk suñuy wax rek la al sirat al aziz al hamid mooy la yàlla bàyyi woon yonent yàlla bi borom boobu muy al hamid ay al mahmud sunu maam yi wala fii dañ naan mboolem cant ñeenti yi ñeel na yàlla mbokk bépp xéewal bu am ci kaw asamaan ak suuf ci yàlla la jógee ma bikum min ni'matin fa min allah soo doon dox ba dajeeg Cheikh Ousmane mu yëkkati cinq mille francs boox la da nga ko sant waaye boo jàddee nga ne alhamdulillah yàlla yow mi may Cheikh Ousmane un cinq mille def ma ma dajeeg moom nga dugal ci xolam bu attan maa may cinq mille et yàlla falaka alhamdu mboolem xéewal yi ñëw ci yow ci yàlla la yeyoo moom la asamaan di sant moom la suuf di sant jàng nañ saar bi ñu génn yu sabbihu ra'du bi hamdi dënn googu moom lay sant ay mi ngi noonu képp koo xam ne yaa ngi sant ku dul keneen ku dul moom yow bokk nga ci ñi nga xam ne dañoo sank borom boobu mu ni mooy ki moom mboolem li nekk ci kaw asamaan yi ak suuf ay ngalawaay ak neexoon jullit ñëpp gëm loolu xam loolu mooy ñu xam ni jibril alayhi salaam jaam la muhammad jaam la abubakar jaam la imaamu malik jaam la keneen koo mën a tudd ci sëriñ boo foorit jaam la sa morooma jaam lan moo leen war mooy yiin ñaar ngeen ànd jaamu ji yàlla loolu la la ren bi saba balqis waxoon keroog ba muy dugg si ci diine ca yonent yàlla suleymaan boole ñaari mbir boole ne nguuruk adduna goo xam ne kenn mësu koo am ca kenn du ko am bi la yumi diin boole yonent yàlla lu tee bu muy jébbalu mu jébbalu ci suleymaan waaye def ne aslamtu ma suleymaan lillahi rabbil alamin maa ngi ñëw di jébbalu ànd ak suleymaan ñeel yàlla mi nga xam ne mooy borom bi naafan yi moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ne afa xayra dinillahi yabxuun wa lahu aslama man fi samawati wal ard ndax nit ñi dañuy sàkku ji beneen doxalin ku dul diine yàlla ji et pourtant day mboolem asamaan ak la fa nekk mboolem suuf ak la fa nekk lépp ngi ko jébbalul mbokk yàlla moo moom kon léegi nga commencé yàlla ma moom lekk gi may lekk yàlla moom oxygène bi may noy yàlla moom ndox ji yàlla moom doom yi yàlla moom asamaan jant weer lépp yàlla moom mbokk yàlla moom moo tax ñu war di ko sant fu ñu mën a toll te duñ ko bokkaale dara moo tax nag mu ne alkaa nga ñeel ne yéeféer yi ci mbugal mu tar mu leen di xaar mi ngi noonu yéeféer mooy koo xam ne yàlla may na ko xel mu war a xam xéewali yàlla ba pare mu suul ko mi ngi noonu kaafir mooy ku suul njëkk mi ngi noonu kuffaar mooy suul ko tu njëkk ya moo tax baykat yi ñu tudde leen kuffaar baykat bi day yóbbu ñebbeem ca àll ba di waqi di dugal di waqi di dugal boo ko fekkewul boo ñëwee doo xam nu mu fi ji lu mu doon naka noonu it la yéefir bi di suule ngëm moo tax mu nekk masali xaysin ajabal kuffaara nabaatu borom boobu ne yéefir yooyu seen mandarga mooy dañoo jël dundug àdduna gi gën koo sopp lool dundug alaxira ca loolu mbokk moo war a nekk mandarga yéeféer waaye malheureusement loolu wàll nañ ci julit ñi tey mbokk nañu xam ne yéen ndaw ñi ñi ngi dund jamono boo xam ne waxuma siècle yi passé mais sun bàyyi rek melu ñu woon noonu ñi ngi dund jamono yi concours dajale alal ah man de jamono bi muy juddu ñañi daan wax ay bàyyi ku ci amul ñaari kër xawma ko ku ci amoon ñaari kër xawma ko liñ daan def fexe ba am sa benn kër gannaaw ba uf sa njaboot uf say mbokk uf di liggéey xalaat jaamu yàlla mais tey doomu aadama ñi ngi concours nit ñi waxatuñu million il parle de milliards Sénégal ñaata milliardaire moo fi nekk su ko defee ñuy dajale des immeubles et des immeubles des des woto yu dul jeex compte bancaire dul jeex kër kër guddi kër kër bëccëg du ñu yendal du ñu fanaanal mbokk loolu mooy gëne la àdduna ci kaw alaxira naam bu dee ne mën nga koo booleeg sa diine dara du la ci rëcc lillahi alhamdu waaye daa jafe de ak a jafe boole ak a jafe boole loolu nag bu ko defee yow suñu borom lan la ñu waxoon mooy wabtaxi fi ma ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia li la yàlla may ci xel may la ko ci ak jot may la ko ci xam-xam may la ko ci ay moyens feexee ci lu la jegeel kërug àllaaxira ga donte ne nag bul bàyyi cër bi ngay war a jox àdduna ngir mën a dund mi ngi noonu ba mën a am autonomie lii la loolu nag muy safaanu yéeféer borom bi nee na ñoom àdduna lañ gën a kër këril guddeeg bëccëg comme la borom bi wax naan bal tu'thiruna al xayaata dunia wal axiratu xayrun wa abqa yéen a ngi gën a la àdduna ci àllaaxira moo gën waaye yemuñu foofu yasudduuna an sabilillah sadda arab da koy jëfandikoo ci ñaar mooy ki dummóoy benn mbir ak ka cay fegaate moo tax wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu kon yasudduun yéefiri fekk nañ seen bopp jaaruñu ci yoon bi ba pare nag ne kenn du ci jaar muy duubul ah fët yoo xam ne ni def nañ ko mi ngi noonu seen kéefee gi rek doyoon na waaye ñu ne it kenn du fi jaamoo yàlla moo tax suñu borom mu ne alladina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al azab ñi nga xam ne dañoo nekk yéeféer rek suñ ñee safara lañ jëm amaa ña boole kéeféer ak fegaate ñooñu ñoom duubul bugal la ñuy jël waaye itamit mbokk di suñu borom ne dañuy fegaate yoonu yàlla di jafeel yoonu yàlla bu dee yéeféer yi moom amul benn iskaal ni ko yàlla waxee am na jeex na français nga neli xale bu jigéen bu muuru dem ci école ya ñu ne la doo fi muuroo boo solee sa mini jupe bismillah décolleté sa dënn yëpp feeñ bismillah waaye muuru kenn du fi muuru yi ngi noonu loolu ñu tudde ko des signes ostentatoires nee nañ lépp luy wane mandarga loolu mi ngi noonu ay puukari la loolu mbokk da ngay gis yéefar yi du problème ci ñu du problème ci julit xam loolu mais lii problème dëgg dëgg mooy mooy da ngay gis da ngay gis ab julit masalan tey doomam bu jigéen xëy na day muuru mu ne ko doo fi muuroo lu tax parce que ñàkk xam mooy jàpp ne muuraay ibaadu yi ñoo ko moom mbokk loolu mbir la boo xam ne lu dangereux la mi ngi noonu ngay gis tey jii sa benn doom ma nga jóg ne dafay góorgóorlu di bàyyi sikkimam di dem ca jàkkaam di nangam nga ne yoon bii mu jaar baaxul da nga ñëw dugg ci yoonu shirk soo ci duggul da ngay gis ne dañuy dogoo mbokk loolu ay mbir la yoo xam ne tamit ku nekk war na ci bàyyi xel nga la waay jullit ak loo mën a gëm ak loo mën a def fexeel ba lépp loo xam ne yaa ngi koy contre yaa ngi koy jéem a tere gëstu ko bu baax a baax ba xam lii mbaa du yàlla ko digle mbokk lu yàlla digle nga jéem koy tere ku mel noonu yàlla nga amal affaire lu yeneen ci yàlla digle nga koy tere moom nga amal affaire moo tax suñu borom ne ñi nga xam ne dañuy jafeel yoonu yàlla day ñooñu day ñi ngi ci cànkute goo xam ne cànkute gu sori sori la mi ngi noonu Cheikh Ousmane
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne wa ma arsalna min rasul musuma yónni benn yonent illa bi lisaani qawmi xanaa ludul ci lammiñu xeetam ci làngu waa xeetam li yubayyina lahum ngiree mu leeral leen la ko yàlla yónni fa yudillu llahu man yasha ci noonu la yàlla de sànke ku mu neex wa yahdi man yasha jubal ca jubal ku mu neex wa huwa al-azizul hakim mooy ki not lépp ci kattanam mooy alxakim lu nekk moo ko teg fa mu war a tege wa laqad arsalna muusa bi ayatina noonu la ñu yónnee woon muusa ci suñuy aaya an axrij qawmaka min azulumaati ila nuur ne ko génneel sa xeet bi ci lëndëm yi te yóbbu leen ca leerug yàlla ga wa zakkiruhum bi ayaami llah nga fàttali leen nag ci bisi yàlla ya inna fi dhalik nekk na ci lii day la ayatin li kulli sabarin shakur ay kawtéef ñeel képp koo xam ne dafa sax ci muñ ak képp koo xam ne dafa sant ci ci ci dafa sax di sant boroomam jalla wa ala mi ngi noonu mbokk suñu boroom def ne musuma yónni benn yonent ci benn xeet lu dul ci làmmiñu waa xeetam laa ko yónni mu wax ak ñoom mi ngi noonu bokk na ci arab yi liñ doon wax xoolal muhammad mii nee na yàllaa ko yónni xanaa kay dafa war a wax yeneen wax waaye moom suñuy wax rek lay wax law la shaanu qulna misla haza làmmiñu arab rek lay wax suñu borom nag ne musuma yónni benn yonent lu dul ci làmmiñu xeetam laa ko yónni waa léegi nag mbokk question bi ñuy posé suñu borom yàlla bépp yonent ci xeetam rek la ko daan yónni yonent yàlla bi nag mu yónni ko ci xawma quatre mille xawma cinq mille xeet yi nekk ci kaw suuf waa léegi luy pexe mbokk liy pexe mooy farata la waxuma lu ñu sopp de farata la ci bépp xeet bu nekk ci kaw suuf ñooñee séeréer njaago anglais chinois polonais lu mu mën a doon farata la ñu am ñoo xam ne dañ leen di yóbbu ñu jàngi làmmiñu arab ngiri ñëw jottili leen la nga xamee ni nii mooy en lettre yàlla boobu yàlla jëme ci ñoom ca fokk ñu ñu ñu tontu ko ëllëg yawmal qiyaama te ji daanaka soo demee presque dans tous les pays du monde daañ fexe ba làkk yi am ci àdduna yépp ñoo am ñoo xam ne dañ leen di jàngal ba buñ demee mën a wax ak ñoom ñu ngi noonu loolu ci ambassade yi almuhim mooy kon farata la mbokk julit toogaay bi ñu toog chinois yi toog ko njaago yi kum mën a doon ci xeetu kaw suuf ñu am ñoo xam ne dañuy jàngi làmmiñu arab ñëw jottili leen li suñu borom yàlla subhanahu wa taala wax loolu mbokk da ngay gis ni farata la mun ta ñàkk lu tax mooy téeréb yàlla bi ñun juddewuñu duñu lan di ay arab fokk kon ñu jéem koo xam loolu nag malheureusement tey li ëpp ci nit ñi jàpp nañu ne loolu moom mën naa ñàkk loolu moom mën naa ñàkk ba da ngay gis ku judd ci lislaam dund ci quatre-vingt-dix ans ba xëy dee musul toog ci jataay boo xam ne dañ koo ëbbil firil ko fatiha gaa yi di ngeen di xam ngeen loolu am ne de waay waxuma nag alquran fatiha bi muy tari 17 fois par jour am nañu judd ba am 90 ans ci l'islam mosuñu toog fuñ leen waxee ne alhamdulillahi rabbil alamin mooy mbooli mi cant yi ñeel na yàlla ba baa nga yéege wala doolin loolu muy erreur bu grave même erreur boobu moo ñuy topp ba yegg si ci xutba jumaa yi tey jii imam day ñëw jumaa ji mille personnes ñëw mu ñëw daal di ñuy dóoral xutbam en arabe xutba boo xam ne peut-être cinq à dix personnes ñoo ko comprendre waaye neuf cent nangam yépp xamuñu li imam di wax dara loolu tax lan ngeen gis ci jumaa yi bi imam demee naan inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan amin wa yanha anil fahsha'i wal munkar amin inna mooy lu imam wax ñu na amin ci maadaama yex si ci fin xutba bi loolee mbokk da ngay gis ne ay njuumte la doomu aadama yi lay seen warugar dañ leen koy wax ci làmmiñ bi ñu dégg dana ci dal lu bari sunu gouvernant yi ban complexe lañu am ba tey même ay tournée yu ñuy def Fuuta Casamance kuli korol buñ demee gaa yi wër leen ñu lakk ay tubaab pourquoi ngay lakk tubaab ndax tubaab bi nekk France na lakk njaago wala muy lakk wolof pourquoi ñi nga nekkal mën a wax lu ñu nekk yaakaar naa mag ñi mës nañu dégg benn xissa mu daloon Senghor Senghor moo jiitoon suñu réew de l'indépendance moom ab séeréer la woon ay wolofam sax leerul waaye mu ñëw boori Kébémer di discours lu mu wax rek gaa yi tàccu tëgg ndënd yi ba mu ba mujj nag mu ne leen je viens de recevoir une triste nouvelle mooy le décès de mon ami amical Cabral mi ngi noonu gaa yi tëgg dëng dëng dëng dëng yu Senghor mu ne hey dama ne jot naa fi nouvelle bu naqari sama xarit amical Cabral dañ koo rey gaa yi ne xerem mi ngi noonu mi ngi doon wax lu ñu dégg su ko defee ko nit imam wax dëgg yàlla bu ñëwee ci nit ñi da leen war a wax lu ñu xam ñu ngi dégg téeréb yàlla bi it suñu borom mu ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi lu dul ci làmmiñu xeetam ngireelu yu bayyina lahum mu leeralal leen falila alhamdu mbokk ñu ngi sant yàlla borom xam-xam lislaam yi tey jii ñi gën a tasaare diine duñu ay arab imam buxaari mi ngay dégg buxaari la la la juddoo ci côté kii arabe kii union soviétique seen cosaan du arab imam muslim yi imam at-Tirmizi ñooñu ngay dégg yépp duñu ay arab ñi gën a tasaare xam-xamu naxu ci ci ci biir islam islam duñu ay arab yaa ngi dégg Cheikh Nasruddin Albani Albani ñu ngi nekk fii gis ngeen xeex yi fa amoon ak fii duñu ay arab kon ñoom ñoo dem jàngi làmmiñu arab ba pare gën koo dégg arab yi tasaare ko encore ci la nga xam ne nii mooy monde islam ba fa lillahi alhamd tey quand on parle de un milliard 300 de musulmans am ñu naan sax un milliard et demi de musulmans man nga wax ne peut-être quart ba muy arab quart ba muy arab waaye ñi ëpp ci jullit ñi te duñu ay arab lan moo ko waral moo di ne dañu lee jottali kaddug yàlla ji mi ngi noonu kaddug yàlla gi su ko defee kon suñu borom mu ne li yu bayyina lahum ngiree mu leeralal leen alquran ji dañ ko war a leeral mbokk jullit doonte ne leeral googu nag bu amee yëpp yàllay tànn ña ko neex mu jëbal leen seetaan ña ko neex ci seenu réer du na rek ku jot message l'islam da ngay jóg déedéet mi ngi noonu loolu ci mbir yi yàlla la nekk waaye nag yàlla subhanahu wa taala ci mbaaxam léegi lañ ngay gis ay nit ñu sori lool mu dugal leen ci lislaam yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci mi ngi noonu yaakaar naa nettali naa leen fii sama benn xarit bu may nettali ñoom ay mat loolu lañu ci bateau yi li ñuy liggéey dañuy am benn ville bu ñu accosté ci Chine nee na ñu dégg ñu ne dëkk bi am na juma ñu ne nañ dem ci juma ji mu ne moom moo ko waa ji mu àndaloon juma ji ñoom ñaar rek a fay nit ku ñuul biñ jullee ba pare imaam bi woolee ñu ñëw mu ne yéen fi ngeen dëkk ñu ne ko Afrique am na gars yi jàpp ne yàlla li mu am yépp mi ngi Sénégal waaye mbokk am boo génnee fii nit ñi xamuñu lii Sénégal am déet ñun Afrique ñun Afrique lañ dëkk imaam bi ne waaw juma ji xool leen rek xéewalu yàlla islam dem na ba nit ñu ñuul ñëw yaa ngi dégg waaye waaye waaye dañuy gis rek yow nit ku ñuul it boo gisoon chinois taxaw fii di nodd di jàngal xolam ñu mu lay yéeme kon suñu borom da ngay gis ne moo mooy def lu ko neex ci ay jaamam di dugal ku ko neex ci yërmandeem yahdi man yasha moo tax mu ne mooy al aziz dara tewu ko waxoon nañu sànq mooy al aziz al hamid fii mu ne mooy al aziz al hakim mbaa ko kàttanu yàlla googee tegu ko lu dul ci loo xam ne xikma la tegu ko lu dul ci loo xam ne sagesse la lu mu digle rek soo ci jaaree doo jóom borom bi it wax na ne yonent yi paas yëpp yónni wu leen lu dul seen làmmiñu xeet mu jël ci benn échantillon muy Moussa alayhi salaam mu ne Moussa gi ni maa ko yónnee woon ci samay aaya aaya yoo xam ne nii kaw nii la mooy yatam baag loxom baag ak kawteef yi mu naan waa firawna fi sa aayaat géej gam xaroo nag ila axiri donte ne yàlla boole na ca it wàcceel ko téere bi gën a rëy gannaaw alquran mooy tawraat tawraat lan moo nekkoon njëriñam ndax bu gaa yi xëy rek jàng ko daal di tëj déedéet tawraat boobu mooy ngiree mu génn nit ñi ci lëndëm yi yóbbu leen ci leer comme ni alquran di génn nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer suñu borom yàlla ne Muusa fàttalil sa xeet bisi yàlla yeleen yàlla jaarale mbokk suñu borom nee na moom moom bis yi wa tilka al ayam nu daawiluha bayna nas Muusa sa xeet bi bew léegi mbëru fàttali leen fan jaarwaay fa leen yàlla jaarale na am yàlla jaarale leen ay at yu bëri firawna jàpp leen noot leen sonal leen ba bàyyi yàlla subhanahu wa taala di leen fa doog a xecc li suñu borom nag mu ni lii day kawtef mi ngi ci ñeel ay muñkat te mooy jamonoy tar-tar jamonoy métit nga muñ muñ gu rafet ñeel na kuy santaak kuy kuy sant te mooy jamonoy xéewal nga sant waaye nii ko yàlla waxee bani israil ngalawaay yéen ndaw ñi it xam leen ni lu matagul un siècle waxuma juróomi téeméer wala mille ans lu matagul un siècle sun maam yi ñi ngi doon dund li ñuy tuddee la crise des années trente mi ngi noonu laajal mag ñi nga xam ne am nañ ak dégg tuuti da ngay gis kër ba mu jeex ab sër du fa am nit ñi dañuy toog amuñu lu ñu lu ñu lekk mi ngi noonu da ngay gis ku takk jabar un an du ko mën a jël lu tax pour mu wutal ko benn sër ak benn marinière kese rek problème lay doon ci moom nit ñi sonn suñu borom boole ca sedd bu metti jamonoy ëgg ba boo ko déggee mooy ci jamono yooyu nit ñi boole xiif boole rafle boole sedd bu tar yàlla def loolu ba affaire bi dem bay xawal lenqaliku suñu borom indi la guerre mondiale 39 45 yooyu suñ maam yi nekk ci loolu da ngay xool nag suñ jamonoy tey alhamdulillah ñu ngi ni nekk ci jàkk ji amuñu lu ñuy ragal amuñu lu ñuy tiit suñu njaboot yaa ngi nekk ci école yi wala feneen soo demee kër ga alhamdulillah lépp ngi nekk ci jàmm loolee mbokk da ngay gis fa yàlla jëlee yóbboon suñuy maam ñun mu jëlee ñu fi indi ñu ci lii wareef la ñu la ñu sant yàlla suñu maam yi muñ waroon na leen waaye ñun sant waroon nañu de mbokk de leen sant yàlla moytu leen ci ñi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi jàmbat dañ gis gaa yoo xam ne cadre lañu yor seen étage yor seen kat kat waaye fu ñu toll ñu ngi jàmbat rek doomu aadama da ngay sant doonte ne mbokk sant du niñ ko jàngale suñu ndeyi tey nañ dajaloo góor ak jigéen togg suñu mbaxali puuj pàcc rey suñuy ndag naan suñuy kafe di dukkat ba suba jot lu ñu mën a dal ñu jàpp ne noonu la ñuy sante yàlla même li yàlla tudde musiba muy dee musibatul mawt de loolu la ko yàlla tudde bu dee amee sax dañuy dukkat di fecc loolee mbokk da ngay gis ni mooy ñaawal borom bi subhanahu wa taala suñu mbokk bamba ñaan yàlla yàlla dolli ko yiw nee na bi ñuy nekkee ci daara ja dañoo am lu ñuy def suñ daara bi woo leen léegi di leen dugal ci néeg bi bamba nee na man la jëkk a dugal nee na dóor maa dóor bu may bëgg a dee nee na ma génn nag ne di di fecc ci kanamu gaa yi da leen say ngeen dee de man la ma waroon jël jël naa ko gaa yi dem na sëriñ bi bambaa gi fecc mu ne woowaat leen ko ñu yow mu ne man daf maa dóor a dóor a dóor waaye mbokk gis gis ngeen loolu day wane ne suñu borom yàlla yàlla nañu yàlla musal ci ayu daf yi ñu nekkal yàlla day indi nattu bëggoon nit ñi toroxlu nit ñi wane tristesse après nit ñi fecc ñoom ak ak bànneexu kon sant yàlla mbokk mooy ñetti mbir yi sant yàlla mooy xol bi day sant yàlla nan la xol bi sant yàlla mooy mu yëg ne moo li mu xiiwal yi nekk ci yow yi nekk ci keneen ci yàlla rek la jóge làmmiñ bi sant yàlla mooy looy feeñal da ngay feeñal alhamdulillah sant yàlla jalla wa ala gannaaw ba jëf ji sant yàlla mooy xiiwal yooyu la yàlla wërsëgal nga koy bàyyi fa neex yàlla di ko teg fa neex yàlla ñii la suñu borom wax ni ñii rek ñooy jëfandikoo ci ay aayaam yàlla na yàlla boole ñu ci mi ngi noonu إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تألم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ni wa id qaala muusa li qawmi fàttalikul ba muusa di wax xeetam uzkuru nicmata allahi alaykum fàttaliku leen xéewal yàlla ci yéen is anjaakum min aali firawn bam leen di musal ci njabootug firawna yasumuunakum suu al azab ñu leen di màndargaale la gën a ñaaw ci mbugal wa yuzabbixuuna abnaakum di rendi seen doom yu góor ya wa yastaxyuuna nisaakum di sàkku dundal seen doom yu jigéen ya wa fi zalikum balaaun min rabbikum azim nekkoon na ñeel leen ci loolu benn balaa muy nattu bu bawoo seen boroom di natt boo xam ni natt bu màgg la wa istaazana rabbukum fàttalikul ba sa borom di yëglu di yëgle ne la in shakartum la azidannakum fii ak yéen a ngi sant day danaa leen dolli wala in kafartum inna azabi la shadid waaye bu ngeen weddee day samay mbugal lu tar la wa qaala muusa noonu la yonent yàlla muusa waxoon xeetam in takfuru antum wa man fi l ardi jamia su ngeen weddee yéen ak waa suuf mboole seen fa inna allaha la ganiyun hamid sa borom yàlla mooy ko woomle ki mooy ka nga xam ne aji sant ko sant yépp ñeel na ko jalla wa ala ñu ngi noonu mbokk kon yonent yàlla Muusa suñu borom sant na ko ne ko sa xeet bi nekk ci ba leen yàlla musalee ca géej ga ñu mbëru lu leen Muusa wax ñu weddi diingat suñu borom ne fàttali leen fañ jóge te it loolu di wareefu képp ci ñun borom bi mu ne Muusa ne na leen ay yéen saw xeet fàttaliku leen bi leen yàlla di musal ci firawna mi nga xam ni mi ngi leen doon mandargaal mbugal ya gën a màgg ba képp koo xam ne nii gis nga muy bani israil gis ñu borom di wax naan yasuu wujuhakum da ngay yëg ci kanamam ak toroxtaange ak tristesse lu waral loolu ngir mbugal yu yu tar yi leen firawna tegoon bokk na ci loolu mooy soo amee doom bu góor ñu ñëw ci sa kër ren di ko sa kanam soo amee doom bu jigéen ñu jël force yóbbu defi mbindaan wala defi jaam wala defi ca ca chantier ya mi ngi noonu loolee suñu borom ne natt bu rëy la boo xamee woon ci yàlla la jóge woon wàcc ci yéen ca mbokk jamono jooju waa bani israil ñoo gënoon ci li yàlla bind yàlla nattu leen natt yooyu lu mel noonu it laajal say maam mbokku Sénégal gi ak Afrique gi yàlla nattoo woon nañu lu ñuy tuddee traite négrière ñetti téeméeri at yoo xam ne nii yéeféer yi tubaab yi ànd ak église chrétienne église bi gëm lool ne ne nit ñu ñuul ñi yàlla da leen a bind pour nit ñi weex ñi ñu ne nit ku ñuul amul ruux ñoo bàyyi ma yeyam dañ daan ñëw di buub di buub di yóbbu ku mel ne Cheikh Anta Diop bind na ci benn téere da jamono bi mu koy bind nee na sax Afrique gënoon na peuplé ci jamono yooyu loolu muy wane ne kon li ñu fi buubee yàlla rek moo ko xam ca ñan lañ doon buub mooy dëkk bu ñu dem ponkol yi gën a baax lañ daan jël ñi ngay tànne xaru taw tawa bi rek laa dun yeeg yooyu noonu lañ doon tànne sunu maam yi seen traite boobu triangulaire bu ñu doon def bateau yi gaare gore chargé yi jëm Angleterre yi jëm Espagne yi jëm Portugal yi jëm jëm Amérique lu jege ñetti téeméeri at ñu koy def sunu maam yi mbokk julit ñi nga gis noir yi nga gis Amérique ak yépp ci loolu lañ jógee traite boobu yàlla mi ngi ko jeexal bi machine yi xewee gars yi xam ne buñ jëlee ay jaam di yóbbu amatuñ ci ay njëriñ ca la tubaab bi nag naxaat suñu doom yi daa di ne waaw ah la traite négrière a été abolie par xaw ma nangam Jules Cher seen kenn ci seen wax yooyu loolu amul les philosophes les les les les les historiens yi xam xam nañ ne traite négrière bi li ko jur mooy coono biñ daan daj jële Afrique di yóbbu bi machine xewee mënatuñ leen a jaay mais loolu yàlla ñu ngi ci seetaan suñu maam loolu mi ngi noonu yaa ngi dégg sunu waykat yu njëkk yi amoon na ci ku ñuy wax ay lay mbu loolu ñoom bilal ci am ñoo koy xam bokkoon na ci ay woyam danaan wax naan démb metti naa da ngay tëdd ba guddi jot buur tëggum dëndam na jóg leen fii ku fi fanaan dib jaam mi ngi noonu sunu maam yi lu ñu leen daan def da ngay tëdd ba deux heures du matin rek lu dégg yuuxu yuuxu yuuxu gaa yi ñëw taal dëkk bi bàyyi jaar fii yaay jaar fii ñu jàpp buub yeew ilaaxiri dem yépp buub def ay jaam loolee mbokk suñu borom yàlla nattoo nañu ko lu yàgg yàgg ba baa suñu borom yàlla nag musal ñu ci génn ñu ci kon ñun war nañ sant yàlla ah comme ni waa bani israel waree sant yàlla looloo tax keroog bi yàlla musalee bani israel mi ngi dëppoog bisu ashura yonent yàlla Muusa bu bis boobu ñëwaatee mu wax waa bani israel woor leen ko ñu sante ko yàlla bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla yónni ko diineem mu ne ñun ñoo gën a yey ci Muusa sant jullit yéen it bu ashura jotee woor leen ko sant ko yàlla loolee mbokk kon mi ngi noonu suñu borom nañ ne ay yéen bani israil musal naa leen ci seen noonu léegi nag su ngeen ma santee dinaa leen dolli ci samay xéewal waaye su ngeen ma weddee samay mbugal lu tar la bani israil santuñu yàlla dañoo beewu suñu borom yàlla wàcce ci ñoom rijzan min as-sama muy test bu leen yàlla yónnee gannaaw ba bàyyi leen arbaina sana fi l ard yatihuuna fi l ard mu tëj leen ci désiru sinaay bi ngeen di dégg ci wetu israil quarante ans yoo xam ne bani israil mënuñu ko génn ba baa mag ñi kàccoor yépp dee ca la suñu borom doog a dimbaliwaat jeunes ya génn leen may def kattan ñu ànd ak yushah ibn nun ca la ñuy doog a ubbi jowaat palestine waaye lii yàlla wax mbokk yemul ci bani israil règle générale la ci mboolem ay jaamam ba ila yawmi din la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid mboolem xéewal bu la yàlla defal nga sant ca yàlla wax naa la sànq lan mooy cant nga sant ca yàlla yàlla dana la dolli xéewal waaye bu dee ne da nga weddi yéeg ne xéewal yi keneen ñu ko def ku dul yàlla wala nga xeeb xéewalu yàlla wala nga jël xéewalu yàlla delloo ko fi neexul yàlla suñu borom yàlla nee na samay mbugal lu tar la ca la shakk fa yàlla di jaara ko jaamam ba mbugal ko suñu borom yàlla moo ko gën a xam Muusa it waxoon waxee itam ay yéen bani Israil su ngeen dëppoo yéen ñépp ci kéeféer ak yéen ak waa suuf yépp ci kéeféer xam leen ne sama borom yàlla day moom ko woomle la te it cant yépp moom la ñeel lii mbokk yàlla wax na ko ci téeréem bu tedd bi waaye yàlla nañ yàlla musal ci ayu ku ñu jiital ca tanewoo sa mbaañi kër mbokkoo kilifa gu mag ci Sénégal nee na yàlla li mu am Sénégal bu ko xeebee perte Bilal Thiam ngi may nettali semaine bii paase rek koo xamee ni nii dañ koy tudde xam-xam borom xam-xamu diine wax ci ci ci ci média yi Sénégal yi naan moo tax suñ diw nee woon na yàlla li mu am Sénégal bu ko xeebee perte mbokk jullit ndax yàlla dana perte suñu borom yàlla mi wax ci xadisul qudsi ay yéen nit ñi law anna insakum wa jinnakum كانوا على قلب أتقى رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ay yéen nit ak jinne su ngeen daje woon ci xolu ki gën ci yéen muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yokku leen dara ci sama ngóor gi su ngeen daje woon ci xolu ki yées ci yéen muy iblis wàññiwu leen dara ci sama ngóor gi ay yéen nit ak jinne bu ngeen daje woon benn place ku nekk xalaat di ñaan xalaat di ñaan ba xalaatam jeex ku ne ma may ko lim ñaan wàññiwul sama nguur gi fusa bu ñu samp ci géej lam cay wàññi moo ko kooko bu ko waa Sénégal jàmmul dana perte mbokk suñu borom yàlla wallahi laajal sa doom yi jàng tuuti billahi lazi la ilaha illa huwa ñi ngeen gisa jàkka ji pepp suuf bu ñu jël pepp suuf génne ko jàkka ji représenté wul noonu ci li ñu yàlla woon ci ci asamaanu suuf am déet ça ne représente pas kon planète terre bu gëñoon ci nguurug yàlla lu mu koy wàññi nan la nit ki mën a ñàkk teggin digganteem ak boromam ba naan yàlla day perte loolee mbokk ay musiba la yoo xam ne ñoom rek ñoo ñee perte bu leen yàlla jéggalul ñoom rek ñoo ñee perte bu leen yàlla jéggalul yàlla ñu yàlla jéggal jéggal leen waaye loolu waxi kéeféer la waxuñu nag yéeféer la waaye waxi kéeféer la ni ngi noonu mbokk suñu borom yàlla mooy alhamid mooy ki nga xam ne cant yépp moo ko yeyoo mooy alxani mooy ki woom le ci boppam mi ngi noonu jàll wa ala mi ngi ni cheikh Ousmane naam ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أوتيتم به وإنا لفي شك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا فأتونا بسلطان مبين jazakallahu xayra suñu borom jàlla wa ala mu ne alam yaatikum naba'u alladina min qablikum ama ndax nit ñi da leen a dikkalul xabaaru ñi leen fi jiitu woon xawmi nuux wa aad wa samud mooy xeet yooyu jiitu walladina min baadihim ak ña nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw laa yaclamuhum illa allah kenn xamu leen ku dul yàlla jaatuhum rusuluhum bil bayinat dikkal na leen seen yonente ya ci lay yu leer naññi fa raddu aydiyahum fi afwahihim ñu del ñu delloo seen loxo ya ci seen gémmiñ ya wa qaalu inna kafarna bima ursiltum bi ñu ne ñun dey weddi nañu ca la nga xam ne dañ leen koo yónni wa inna la fi shakk te ñun de ñi nga ci sikk sàkk mimma tad'unana ilayhi murib ca la nga xam ne da ngeen ñu coox woo jëmi murib di gën jaa tar ci sikk sàkk qalat rusuluhum noon la tontoo yonent ya afillahi shak am ndax ci yàlla sikk sàkk dana ci nekk fatiri samawati wal wal ard moom mi bind asamaan yi moom mi bind suuf yad'ukum li yaxfira lakum min dunubikum moom mi leen ah diwoo ngir baal leen la nga xam ne mooy seeni bakkaar wa yuaxirukum ila ajalin musamma di leen yéexe ba ci dig boo xam ne bu ñu tudd la qaalu in antum illa basharun misluna ñu ne eey yéen day nekku leen lu dul ay nit comme ñun rek turiduuna an tasudduuna amma kaana yabudu abauna bëggu leen lu dul fekk ñu rek ca la nga xam ne doon na ko jaamu suñu bàyyi faatuuna bi sultaanin mubin léegi indil leen ñu ay lay yoo xam ne lay yu leer la mi ngi noonu mbokk suñu boroom mi ngi wax ne eyeen bani israil ak kuy dégg bi ila yawmi diin su ngeen jaamuwul yàlla yàlla moom ko woom le la xanaa gis indikul leen xabaaru xeytu nuux aad samud ak ñi nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw ñoo dëkke woon kaw suuf yàlla sant leen ñu bañ yàlla boole leen alak leen boole seen te loolu wàññiwul yàlla dara ñooñu suñu borom ne seen yeneen ci dikkaloon na leen ci ay lay yu leer nañ waaye lu ñu def dañoo delloo seeni loxo ci seen gémmiñ ni ngi noonu am ñu koy firi dañ ko dañoo tëj gémmiñu yeneen ci ya am nañu ko firi seen gémmiñ ñoom lañ tëj ngir yéemu te loolu ba tey yow nit ñi dañ koy def boo déggee lu la yëm gën a seet tët tët tët mi ngi noonu bi yeneen ci ñëwee ne yàlla kenn la ñoom ñëpp ñu daraloo seen gémmiñ ah masalan waa makka amoon na ñetti téeméeri yàlla ak lu topp am ay yenn yàlla yu mag laat uza manaat yeneen ci yàlla bi moom ñëw ni laa ilaha illa allah kenn yeewul ñu koy jaamu ku dul yàlla gaa yi ñu ne bisimilah jam ajaala al aliha ilahan wahida inna hada la shay'un ujab waa di ngi li muhammad waxee nee na sunu yàlla yépp du dara lii ko yéemi waaye mbokk boo demoon tey kolabaan mi ngi noonu wala biir sandaga nga taxaw ne yowmal qiyam ku fa yaakaar keneen ku dul yàlla yaakaaram dana tas gaa yi bu la fa ay yet fekkul ay seen loxo dana dem seen gémmiñ ba tàyyi de mbokk loolu mbokk mooy mooy nature doomu aadama yi li ñu gëm waaye nag wallahi loolu mooy dëgg képp koo yaakaar ëllëg yowmal qiyam ci du yàlla boo demee sa yaakaar dana tas alaxira mooy yowma la tamliku nafsun li nafsin shay'a amul benn bakkan bu fay moomal morooma bakkanam dara ñu ngi noonu suñu borom bu waxee ne su ngeen dee dañ leen dekkal ñu ne bisimilah jam sunu maamaati maam yi dee woon seen yax yaa ngi ne fënax kii ñëw naan bu ñu dee daan ñu dekkal mi ngi noonu loolee ak yi la nga xam ne mooy mboole mi xëybu bi yeneen bi nga xam ne yéefir dañ ko weddi woon suñu borom ni luñ daan wax ñun day weddi nañ ci li ñu leen yónnee weddi nañ ko mi ngi noonu te it ñi ngi sikk sàkk ci li ngeen ñu woo jëmee te mbokkoo yéefir yi tamit problème bi ñu doon am mooy ñaari problème benn pour ñoom seen xel mënul nangu xëyb lan laa jublu ci xëybu mooy dee dekki ak yu demee noonu waaye tamit li leen doon jaaxal mooy yonent yi duñu fen naka la ñuy mën a waxee lii mi ngi noonu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la shakka ne waa màkk yëpp xamoon nañu du fen keroog bi muy jëkk a woote woote public dafa dem taxaw ci safa daa di yuuxu ya sabaha comme ni karab yi doon defee booba télévision amul rajo amul ku mën a dem dem ku mënta dem yónnee ba mbooloo ñëpp daje mu ne waaw yéen su ma waxoon ne damaa gis ay noon ñi ngi dajaloo pour attaquer si makka ndax da ngeen ma gëm ñu ne ko ah kay yow loo ma soo fa dëgg la mu ne leen nag maa ngi leen di seedaloo ne la ilaha illa allah wa anni rasulullah maa ngi seedaloo na man yàlla rek yéen jaamu ko man yeneen ci yàlla laa baayu boppam di abili hëpp moo ne ko tabban lak alkaa nga ñeel na la lii tax nga dajaluñu fii suñu borom tontul ko ne tabbat yada abi lahabin wa tabb mi ngi noonu ki kalku dëgg dëgg dëgg mooy abi lahab waaye ci gàttal rek mooy loole da ngay gis ne doon na nekk problème ci ñoom mooy yonent yi ñoom duñu fenn léegi ci lii ñu wax mënul ñu ko nangu moo tax suñu borom ne dañ ne nekk ci sikk sàkk te gën jaa tar te la nga xam ne mooy sikk sàkk noonu te ne ni suñu borom nee na yonent yi tontu nañ leen ndax yàlla am na lu ñuy war a sikk sàkk ci moom yàlla mi bind asamaan yi ak suuf ca mooy yàlla mi bind asamaan ak suuf ndax man ngeen a am sikki sàkk ci ne mën na wax ak kenn ci ay jaamam ne ko waaral nit ñi te loolu da leen a jaaxaloon yàlla ngi ci kaw asamaan kii mi ngi ci kaw suuf moom naka la mën a ñëwee naan yàlla nee na moo tax ñu noonu yonent bi soo bëggee ñu gëm la an tarqa fi sama yéegal naaw ko asamaan bëgg ñu xool boo naawee wàcc yàccale ab téere ñu xam ne lii yàlla la ko jox waaye toog fi naan ñu yàlla nee na yàlla nee na yaa ngi dégg loolee suñu borom ne ndax lu mu nekk gannaaw ba dee dekki ñun man yoxi lay zaamu hiya ramim moo tax suñu borom mu ne awal lay sëlles yi xalaqa samawati wal ard bi qadirin ala an yaxluqa mislahum ndax yàlla mi bind asamaane ak suuf amul kàttan ci yéen bu ngeen dee ma bindaat leen ah kay looloo tax mu ne afillahi shak ndax yàlla dañ sikk sàkk ci lenn lu mu digge moom mi bind la nga xam ne mooy asamaane ak suuf borom boobu mu ne mi ngi leen di woo ngir baal leen seeni bakkaar gaa yi suñu borom yàlla biri yërmande day yónni ay yonent yonent yi def ñombe yu gën a rëy mu ne dem leen woo leen néew leen ñëw ma baal leen bokkoon na kum ñu nettali koo xam ne li mu def ci kaw suuf kenn defu ko fi muy firawna waaye xoolal ba muy yónni ci moom yonent yàlla Moussa mu ne mu mu ne Moussa bu ngeen demee fa quula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaxsha soo demee yàgg Haaruna tànn leen wax yi gën a nooy yi gën a rafet ngeen wax ak moom ngiree mu fàttaliku daa di doon koo xam ne kuy toroxlu la noonu la ko Moussa defee ñëw ci firawna هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى أي فرعون لي داف تي مبون ييب خنا دو كاي مو ور لا يون بو خامني سو تي جاري سل مو جوبل لا كي سا بروم ميغي نونو غا دون اجي تخي لولو مبوكو يالا دي وو بوري كاتر يوي waxuma keneen ku dul moom waa ji agresseur la ngal la waay boo ko mënee woo ci lislaam woo ko ci lislaam bu tuubee rek yàlla baal ko li gën a bon gën a ñaaw ci bakkaar yi muy ak góor jigéen koo gis mu nekk ca yàlla waay woo ko xamal ko ni bu tuubee yàlla baal ko suñu borom yàlla mi ngi noonu amul benn jaam boo xam ne da nga di fi njombi ba tuub te yàlla du la baal a rasul sallallahu alayhi wasallam joxe ci misaal boo xam ne misaal du ko romb abadan abadan ca léeg-léeg ñun ñi yàlla nattoo ay imam ngay dégg benn caamin man daal imam dëgg dëgg dëgg dëgg xam naa ne dama bëgg a tuub de waaye man daal dama def ay njombe njombe yoo xam li ma lay jëkk a laaj mooy ndax mas ngaa rey nit boo nee déedéet ba nga la kon waxtaan bi dana neex yaa ngi dégg mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn waay ci bani israil yor na jaasiyam di agressé di rey di jël alalu nit ñi di rey di jël alalu nit ñi ba rey 99 xelam yedd ko waaw man su ma dee ci lii fu ma jëm ah man war naa tuubi kat dem fekk benn sëriñu caamin ñëw na ko man day wax dëgg yàlla dama sàggaloon lool sama jaasi ji daal rey naa ci quatre vingt dix neuf personnes waa ji na ko waay yow benn julli rek boo ko reyee safara nga jëm nga rey quatre vingt dix neuf yow fooy tëbe jógal fii mu naa ko dex ma ma jekkale la rek benn benn yoon muy téeméer corbab bi muy téeméer mu dellu delluwaat ci agression bu mujj rek yàlla dugalaat ci xol bi tuub mu laajte waa dëkk bi ku fi ëpp xam-xam bi mu laajee ki fépp xam-xam ñu ne ko ah sëñ Ndiaye dama fépp xam-xam mu dem ci sëñ Ndiaye wax ko fi mu jaar fépp sëñ Ndiaye xam naa la ngay jëkk a xalaat mooy ah dana wax lu mu xam waaye sëñ Ndiaye na ko eh dara doxul sa diggante nga tuub booy tuub yàlla dina baam yaa ngi dégg waaye nag dëkk bii nga nekk doon fi def lu bon dëkk bii da ngay dem dëkk sangam ñu baax ñi ngi foofu nga ànd ak ñoom jaamu yàlla te loolu it mbokk dëkk ñu baax day jeexital ci say jaamu yàlla yi ngay def loolu ñu bàyyi ci xel bu baax bu yàlla wërsëgalee nga am quartier bu baax dëkkandoo yu baax nga la waay loolu xamal ne xiiwalug yàlla la mi ngi noonu ngi mel ni ngi sant suñu borom jalla wa ala mi ñu wërsëgal Parcelles Assainies ci dëkk yi gën a neex a dund sunna ci la bokk yal na yàlla sàmmal ñu ko ci yokkal ñu ko mi ngi noonu ala kulli xaal waa ju jóge fa départ mën na am ma nga jëm xëy na Thiès ba mu demee deme dem ba puut yàlla dogal mu faatu wala boog ba ci digg ba sax yàlla dogal mu faatu suñu borom malaaka yërmande yi naaw malaaka mbugal yi naaw biñ dajee ñii ne hey kii musul def lu baax safara la jëm ñeneen yërmande ne déedéet tuuboon ne mi ngi jëm ci yàlla àddina la jëm suñu borom yónni malaaka mu àtte leen ne xool leen dëkk bi mu jëmoon bu dee fa la gën a jege yóbbu leen àjjana bu dee fi mu jóge la gën a jege yóbbu leen safara ci noonu yàlla ci mbaaxam def dëkk ba mu jëm gën a jege mu yóbbu ko aljanna lii mbokk benn misaal la buy wone ne misaal mënu ko passé quel que soit doomu aadama bi li mu def nañ ko xemmeem la mu tuub mi ngi noonu bu tuubee rek yàlla baal ko xiste biñ génn mooy xiste yonent yàlla yuusufa jël doomi yonent ah koo xam ne moom ci boppam yonent la yóbbu ko sànni ko fen-fen yu rëy jël ay boobam taqal lu ne nga def ko mais gis nga biñ tuubee lan la yàlla def yàlla da leen a baal ca mooy yàlla mi ngi woote doonte ne nag mbokk woote boobu dana gën a feddaliku boo di njël suñ demee ba li nga xam ne nii mooy ceeru guddi gi de- des suñu borom dana woo jaam yi ay jaam yi yàlla yi kuy tuub ma baal ko kuy ñaan ma may ko kuy xecci lu ko ba xecci li la loole it waxtu woowu ngalawaay dee leen ko jagleel la nga xamee ni nii mooy ak tuub di dellu ci seen borom moo tax borom bi mu ne mi ngi noonu di leen woo pour ngeen tuub mbokk waaye di lépp di discours bu leer bi ko yonent yi waxee lan la seen xeet bi wax hey yéen daal wax ji moom gudd ak a gàtt da ngeen a bëgg ñoo génne ñu li sunu bàyyi nekkoon loolu nag ñun mënuñu koo nangu abadan indil leen ñu ay lay yu leer yu ñuy mën a xamal ne sunu bàyyi ci nen la ñu nekkoon à 100 pour cent ak it yéen li ngeen ñu woo jub na à 100 pour cent waaye mbokk benn lay mënul tax ñu nangu loolu te loolu it di mbir moo xam ne nga la waay bu mu la yóbbaale yow doomu aadama bi yéeféer moom yéeféer la la muy jëkk a xalaat kii di ko woo ci diine dafa bëgg a am ci moom benn supériorité ndax moom mi ngi koy bàyyi loolu li bàyyam nekk waaye it da nga gis koo xam ne tey ci lislaam la nekk moom mi ngi fekke bàyyam am façon bi muy jaamoo yàlla façon bi muy jaamoo yàlla bàyyam mi ngi bokk ci waa kër Sëñ Caam mais waa kër Sëñ Caam li ñu nekk am na ci lu baax lu dëppoog sharia waaye am na ci loo xam ne ay bidaa la léegi yow nga woo ko ne ko ah lii day waa kër Sëñ Caam di jëfe loolee day safaanoo nag sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam mais li ëpp ci ñoom au lieu ñu xalaat sunna ba nga leen woo jëme mais li ñu xalaat li ngi leen nar a bàyyiloo mi ngi noonu da ngeen ñu bëgg a bàyyiloo li suñ bàyyi nekkoon loolee duñ ko bàyyi tey duñ ko bàyyi ëllëg loolu mbokk mbir la moo xamee ni nii kon julit bi fexeel ba li ngay jaamoo sa borom doon yaqin bul jaamu yàlla ngir da ngaa doon ci bàyyi bul jaamu yàlla ngir milieu bi nga nekk waaye lépp looy def def ko ci preuve leer sa digganteeg sa borom ba yegg ci ne tey sa waajur yépp bu ñu génnoon ci ci diini lislaam sa dëkkandoo yépp bu ñu génnoon ci diini lislaam du tee yow pare nga pour nekk benn julit buy dox ci kaw suuf yal na yàlla may ñu yaqin boobu saxal ñu ci njub ca wërsëgal ñi bu ñuy dajeeg moom àjjana firdaws wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain salaatu tasbih ndax sunna la wala du sunna mbokk salaatu tasbih borom xam-xam yi dañ caa am uute am na ñoo xam ne dañ ko wéral am na ñoo xam ne dañ ne bokkul ci xadis yi wér doonte ne ne ñun ñi ngi ànd ak ñooñu ne xadis yooyu corot yépp wérul ndax façon boobi dafa safaanoog façon julli ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay jàng fatiha di wax ay subhanallah alhamdulillah nangam nangam loolu nokkil woon doxalin yonente bi sallallahu alayhi wasallam muy un ñaareel ba it lañ ca wax mooy boo ko defee yàlla baal la la nga tay la nga tayul la nga xam la ila axiri loolee mbokk ba tey it mbir la boo xam ne nii amul benn di amul benn jaamu yàlla bu mel noonu yonente bi alayhi salaam daana wax ne julli juróom ah diggante bi day far bàkkaar yépp fii ak yaa ngi moytu kabair weeru koor ak weeru koor day fay bàkkaar yépp féeg yaa ngi moytu kabair nan la benn salaatu tasbih bi ngay def ci cinq minutes ñëw mën a far sa bàkkaar yépp kabair saxair nangam loolee kon nekkul lu lu loo xam ne lu ñuy war a jëfe la ca même bu doon te ne it sax na am na it leneen xam nga biddaa day woo biddaa am na ñoo xam ne dañuy woote ngën di maam yi daje ne pour salaatu tasbih waaw gars yi loolu fan la ko yonente bekk saxaaba ma sa defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax dégg naa ci mbir bu dangereux ay jeunes yi nekkoon ci caaro yi ne ay benn góor moo leen woo ne comme ay jeunes ngeen waa romb gu leen la nga xam ne mooy njaaloog ak po yi ngeen di poog kaay ma wax leen julli goo xam ne moom bu ngeen ko defee lu ngeen def yàlla baal leen jàgg na salatu tasbih waaye mbokk loolu musiba mënul passé loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam waaleykum salaam wa rahmatullah ndax am ñeenti jabar ba pare ëllëg nga bëgg a takk keneen daa di remplacer kenn waaw loolu day mbir la moo xam ne dañu naan lu ñaaw ma nga ca su diine it lor gu ma nga ca islam bëggul lor waaye nag xaraamul xaraamul suñu borom subhanahu wa taala mu ne وإن أرستم أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا borom bi nee na boo amee soxna nga bëgg koo changé ak keneen boo ko joxoon trésor ba mu feesit bu ca jël dara loolu daal ñu xam ne mbir la moo xam ne araamul waaye nag base l'islam mooy la darara wala diraar soxna sa ngay bàyyi mu nar a nekk tumuranke di sonn ngir sa bànneexu bakkan rek loolee di ngay gis ne islam gërëmul loolu amma nag léeg-léeg mën na doon koo xam ne bàyyi ga nga koy bàyyi loru ko dara wàññiwu ko dara bal gis naa lu gën a yéeme loolu gis naa benn famille boo xamee ne nii benn góor gu am ñeenti soxna benn bis la aawe bi woo ko ne ko jànq diw bi jànq na fi ba léegi mi ngi passé 40 ans dama bëgg ma may la sama buum nga bàyyi ma ca moom nga takk ko ngiree mu am njaboot góor gi bàyyi ko bi iddaam jeexee mu dem takk jànq ba jànq boobee ak njabootam xam naa li ñu ngi dox fii ci ndakaaru donc soxna soosu tuyaabu jëg bu ko yàlla fay dana réy di am déet kon daal loolu la mi ngi noonu mooy daal bàyyi soxna su dee lor amu ca islam aramulu ko amma nag lor moom islam bëggu ko wallahu subhanahu wa taala alam waaw waaw bismillah waaw xam naa après ñu mujj ci yow rek bismillah waaw waaw waaleykum salaam ah waaleykum salaam ah waaw télé yi ak rajo yi dañuy lan ah bo bo da ngay woote ñu lay jox ay sukkaru koor wo wo wo woote ba dafay am loo xam ne dañ ko ciy ñàkk bu dee am nga la ko ñàkk mbokk loolu carte la mooy carte yi ñàkk a def lépp dañuy ubbi benn vocal vocal boo xam ne nii 628 tel tel tel foo ko déggee vocal la yow boo duggee du woote da nga bàyyi 1000 francs wala li nga bàyyi 2000 bu ko defee ñu ne am nañu gagné nangam loolu boo demee au finish ñoom daan ci dajale lu jege 2 millions lañ cay joxe peut-être 500000 lay doon donc yooyu julit du dugg ci loolu façon carte la ci carte yi wallahu subhanahu wa taala alam ñu mujj ci mbokk bi rek bismillah waaw aleykum salaam dafa inscrit ci école bi aide sociale waaw ndax aide sociale bi dana waaw ah dafa inscrire pour am aide aide aide sociale est-ce que moom dana jàng ci l'école bi ah waaw ala kulli xaal daal li ñu xam mooy aide sociale mooy koo xamee ne nii daa toll ci jàng ca amul moyen yu ma jànge mairie bi wala état bi jox ko benn aide ngir loolu dimbali ko mu dem di jàng maadaama moom ma ma ci xaal boobu la nekk ma ngay jàng ci école ba edd ba muy lekk dana ko dagan li nga xam ne kay moom la yenn étudiants yi di def mooy dem jël ay edd ba pare doo teg sa tànk fa ñuy jànge loole moom moo nekkul lu jaadu doomu aadama bi li nga laaj ne jox leen ma lii ngir lii da nga ko war a def foofee heure bu loolu jeexee nga bàyyi ko ngir ñu dimbali ci beneen ndaw bu bëgg a jàng ci amul moyen loolu mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain